Timothée Colli te je suis le national de l'amicale des travailleurs de l'électricité amicale des travailleurs de l'électricité benn kuréel boo xamante ni la moo ëmb prestataires yi nga xamante ni ñoo nekk Senelec di ci liggéey au niveau national mu nekk Sénégal yëpp donc euh, amicale bi euh, ñi fi nekk ay góor dañ ak ay jigéen jox seen dund Senelec te ki gën a néewle at ci at yu mu totalisé au niveau de la Senelec cinq ans de service la donc di toog ay weeru yàlla kenn du leen fay te ñuy nekk ay borom yi mais lan moo tax expérience bi nga xamante ni moom lañ am loolu yëpp à chaque instant bu occasion embauche taxawee rek ñu bàyyi leen fii dem jël seen i mbokk jël seen i partisans politiques ak seen i rakk militants loolu la ñuy développé mu nekk injustice boo xamante ni vraiment dafa jéggi dayoo te boo xoolee ba xool ci biir euh, prestation de service bi nga xamante ni ñu ngi koy def au niveau de la Sénélec nekk na lu doy waar parce que ay père de famille nekk ay soutien de famille nekk ay mère de famille di liggéey Sénélec di présenter facture di relever ay compteurs di dem ci terrain bi di brancher compteur yi di dépanner clients yi nekk ci réseau électrique bi nekk dans les centrales électriques ba pare dans tout cela ay weer yàlla la ñuy toog kenn du leen fay tey li ma ko yàgg a waxee rek boo demee Kaolack toog nañ 7 mois kenn fay leen nga dem Parcelles Assainies Dakar toog nañ 1 an dans toutes les localités du Sénégal c'est toujours comme ça te pourtant bu nekkoon expérience expérience bi ñoom am nañ ko ba mu jot ba ba ba mu mët sëkk ba mu mët sëkk tey jii nag li ñu fi dajale. mooy dénoncer li nga xamante ni moom la presté bi di dund ci biir Senelec bi mu nekk nekkin bu métti nekkin boo xamante ne ni da ngay dugg sa kër sax dañ lay xoolaat ndax dañuy naan waamee kii ndax mu ngi liggéey ndax tamit kuy liggéey ku ne ñàkk jëriñu lañu wax mais prestataires yi yàgg nañ fi loolu di liggéey am xam-xam mais jusqu'à présent kenn mënu leen fexe ba jox seen gëdd Pape Mademba bi tey mii tey moo fi nekk directeur général Senelec tey boo xoolee ba xool en 2020 dañ ko lu bëree yoon Pape Mademba bi tey saa bu ñu ko rencontré bu ay promesse embauche demoon na ba di la embauché avant fin 2020 ñëpp di juddoo yaakaar mais dañoo dem ba le 3 ba le 28 décembre 2020 ci la ma oo ne ma 3 personnes la mën a jël sur 499 personnes prestataires te pourtant conseil d' administration Senelec en en l' année 2020 mayoon ko 210 éléments pour mu embaucher leen mais 210 éléments yi fan la ko jaarale ci ay mbokkam ay raq jabaram ay partisans ay militants te loolu am nañ ci ay preuve yu leer nañ tey li ñu fi dajale moo nekk ñun dañoo sonn sonn nañ ci ki nga xamante ni mooy Pape Mademba dee ci diggee yoo xamante da koy def da koy waxte di ko jëfee bu toogee di gëm loo président de la république Macky loo xam ne nekkul prestataire bi ku ne mu ngi nekk daal de très bonnes conditions bi mu ngi nekk ci condition yi anormal parce que tey jii boo xoolee am nay prestataires yoo xamante ni seen i yaay dañoo gaañu am na prestataires yoo xamante ni seen i jabar dañoo fay li ko waral mooy toog di liggéey te mënoo fayeeku toog ay weeru yàlla kenn du la fay loolu dafa bett ci kilifa donc tey jii nag ñu ngi woo vraiment opinion nationale bi di alerter tam aussi vraiment euh, ki nga xamante ni mooy les autorités yi nga xamante ñoo nekk ci biir euh, réew mi di waxtaan ak président de la république Macky Sall di ko wax ne prestataires yi nga xamante ni ñoo nekk Senelec tey ji Macky Sall mu ngi naan affaire euh, embauchement vraiment recrutement des jeunes dans la fonction publique pour jàppale ndaw ñi mais na xam ne carrément prestataires yi ñoom yëguñ seen bopp ci affaire bi ndax directeur général suñ ko bàyyee nii ay raxam ak ay mboqam rek la commencé jël te ba léegi mu ngi ci loolu tey moo ñu métti ba rot tey ñu toog fii tey di waxtaan ak yéen ñun nag li ñu combatre nii pare nañ ba dem ci ba jeex tàkk duñ ci reculer te kenn mënuñoo menacer ba ñu def loo xamante ni waruñu ko def dinañ ci dem ba mu jeex tàkk ndax lii c'est un combat de jeunesse c'est un combat boo xamante ni pour notre avenir la parce que képp kuy liggéey ci boîte ñaan nga yàlla tedd fa teral say waajur teral say teral say mbokk teral ñëpp ñi nga xamante ni vraiment jege nañ la mais di liggéey di toog ay weer kenn du la embauché ay 5 ans 10 ans 15 ans nga def ko ci entreprise mais ku def 5 ans ci entreprise yoon sax wax na ne carrément kooku bu ñu occasion embauche taxawee mais dañ la war a embauché mais lan moo tax Pape ba Bitèye mi nga xamante moo fi nekk tey 210 éléments yi ko conseil d' administration mayoon en 2020 lan moo tax mënu ko woon commencé ci prestataires yi mu nekk lu doy waar loolu nag fu mu toll nii ñun ñëpp manko Sénégal yëpp prestataires yi fu mu ne fu ne dañoo manko daal di wax ne lii daf dagg. te li gën a soof Senelec moo nekk cadre Senelec yi nga xamante dañoo retraité imagine toi nga def 30 ans de service dans une structure di liggéey Senelec jox sa dund dem ba certainement retraité daal di dellu siwaat ci boîte bi Pape Demba dem Pape Demba bi tey di jox di jox privilège ñooñu noonu di créer ay GIE ñëwaat di exploiter jeunes yi donc Senelec fu mu toll nii situation bu doy waar moo fa nekk situation boo xamante ne nii cadre retraité yi aussi tamit foog ñuy wax seen mbir parce que tamit ku liggéey ay 30 ans de da nga war a toog sa kër may xale yi vraiment ñu liggéey nit ki nag su fekkente ne da bëgg sa réew avancé réew mii ndaw ñi ñoo ko yor réew mi ndaw ñi ñoo koy mujjee kon donc li nga xamante ni liggéey nañ ba retraité ngir yàlla nañ dem toog seen kër yi lii nag du lu ñuy ñaan lii suñu àq ak yelef la dañuy ñëw pour jël si ko parce que dañoo liggéey ay at wax naa leen ko sànq ku ci gën a ndaw cinq ans la am tey jii dañoo taxaw former suñu kuréel ngir laaj la régularisation de tous ces quatre cent quatre-vingt-dix-neuf prestataires te dinañ ci dox. dinañ ci wax ba fu mu yem neex ndax ñii ay boromi kër nañ comme ñoom li ñu nekk ay boromi kër ñii ay mère na famille nañ ñii nekk ay soutien de famille du ñu nangooti kenn du ñu teg bu mu jàmm fu mu toll ni exploitation bi Senelec dafa jéggi dayoo te boo xoolee ba xool actuellement ñu ngi commencé waat beneen exploitation boo xamante ni ci jeunes la muy dek mu nekk dans le réseau te mu nekk lu doy waar te loolu boo xoolee ba xool dañuy di gëmloo ay contrat verbal ay contrat yoo xamante ni dañuy jóg ay kilomètres di dox ay 7 kilomètres ci tànk pour relever ay postes loolu dafa doy suñu nee ay contrat ko te contrat yooyu noonu amul benn prestataire boo xamante ne émergé nga ci benn papier loolu dafa doy waar kon Senelec pratique yi nga xamante ne vraiment moom la directeur général di def au niveau du direction des ressources humaines moo ñu neexul te wax naa leen ko temps yi la passé ci génn bi nga xamante ni président conseil d' administration Senelec génnoon na ko fi di wax naan moom su nekkoon ne moom mooy euh, directeur général Senelec chaque année dina jël deux cent personnes ci ay mbokkam loolu lu ñaaw la deux cent personnes mbokkam te prestataires yi nekk fii xam liggéey bi su ñu bëggee Sénégal dox jëm kanam nañ def l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolu mooy faire fonctionner une structure loolu mooy tax Sénégal jëm kanam mais mënuñ fi nekk chaque jour rek ku fi toog nekkal say mbokk ku fi toog say mbokk nga fi nekkal te Pape Mademba Bitèye depuis bi ñu ko falee ba léegi y a trois ans amul lenn lu fi def dafa xoj Sénégal ba Sénégal mënatul nooy ñun nag Pastef on en li ñuy bëgg tey ñaanuñu ko dafa nekk lu nga xamante ni moom lañ moom te dañ ko jëli dinañ ko jëli te pare nañ vraiment pour def lépp di wax ne carrément fu mu toll nii ñu ngi o ñi nga xamante ni ñoo autorités yi ñu dimbale vraiment ndaw ñi ngir def vraiment ñu am xëy ci biir Senelec bi ñu embauché leen une bonne fois pour toutes yi nekk stable parce que ay pères de famille nañ ay de famille ñu ngi alerte vraiment président de la république di ko ñaan pour mu wax ki nga xamante ni moom mooy Pape Mademba Bitèye ci li nga xamante ni moom la yore Senelec mu nekk bu ñaaw donc en grosso modo loolu daal vraiment laa bëggoon exposé di jox rendez-vous gars yi dig demee. joxewoon nañ. Euh, le 19 bi passé lundi ñoo dugaloon benn demande autorisation marche pour ñu jugee rond euh, place place de la nation ba rond point RTS pour naqarlu suñu condition bi ñu nekkee ci biir Senelec bi ñu ko dugalee nag ba léegi le 19 lañ ko dugal le 19 avril lañ ko dugal ba léegi nii préfet bi munu mënuñu wax dara lu leer saa yu fa demee mun naa ñu tey suba tey suba. te te li ñuy laaj nii suñu àq ak suñu yelef la constitution Sénégal moom moo ko moom moo ko permettre képp ku am loolu naqari am nga droit génn marche constitution moom moo ko bind. léegi nag moom bu fekkee nag dafa am leneen nekk ci ginnaaw nañu ko wax nañu ko wax mais suñu plan d'action bu njëkk mooy le 28 avril 2021 bii nii dinañ marche marche pacifique nag marche pacifique la ñu wax képp ku ñëw nag na nga gànnaayoo sa lépp masque lépp na nga ñëw taxaw. ñu marché nànk dem ci jàmm ñibbisi si jàmm léegi nag lenteur yi moom la ñuy wax lenteur administrative yi parce que préfet dama jàpp ni man moom dafay nekkal euh, euh, buur buur la fi nekkal xaw ma lan la fi nekkal mais moom li muy def nit ñi jaaduwut doo doo jox nit ki ni ko ñëwal lundi lundi mu ñëw nga naan ko des na dara des na tuuti rek xaaral ba xaaral ba subaak mais demain soir demain soir c'est vague demain soir ku la woon nii la demain soir nga ñëw ba heure la wax jox la jox dara demain soir dafa vague léegi nag ñun li ñu koy wax mooy lenn c'est simple moom bu ñu ko mayee dinañ marche bu ñu ko mayee dinañ marche ci kàttanu yàlla bu ñu ko mayee dinañ marche bu ñu ko mayee dinañ marche léegi nag plan d'action bi ci topp encore mooy le cinq mais incha allahu rabi dinañ def sitting devant les locaux de la direction générale chez Vincent dañuy def sitting bu mag la cinq mai incha allahu rabi dañu fa def sitting loolu bu weesoo te Pape Demba Pape bi Bitèye deful dara dinañ dem ci plan dinañ dem dinañ aussi ci beneen plan d'action maanaam mooy grève de la fin boobu tamit ñu ngi koy defee ci locaux Vincent yi lañ koy defee incha allahu rabi te lii nag da koy da koy def wala wala mu jóge fi mañu keneen ñëw ñun nag. suñu àq ak suñu yelleef laaj suñu àq ak suñu yelleef droit la droit la képp kuy liggéey ci benn boîte pendant cinq ans pendant cinq ans yoon li mu wax mooy nga jël ko régulariser ko jox ko embauche am muy liggéey comme ñëpp nit ki nag mënoo nekk chaque jour nag ngay daw di daw di daw ba xëy dee doo am dara doo am dara Sénégal dafa dafa mel ni ñun euh, rangooñu buur moo mooy cimetière baadoo la kaw rangooñu baadoo la mooy mooy cimetière buur mais loolu fi nekk di ñu ñaata ñu ñu Senelec bi am na ñoo xam ne vingt ans vingt ans vingt ans vingt ans chaque chaque année Senelec def bénéfice ay milliards ñun ñoo koy liggéey ñun ñii ñun ñoo koy liggéey ñun ñooy recouvrer ñun ñooy relever ñun ñooy couper ah ñun ñun ñooy def branchement ñun ñoo nekk ci réseau bi di dépanner clients yi ñun ñoo def lépp te amuñu prime de risque amuñu prime de motivation amuñu lenn prime de logement sax amuñu ko. ñun ñun am na ñoo xam su suñu biir fii nii ñoo xam ne ñu leen waaj a génne seen kër fii seen location mënuñ ko fay ndax lan loolu ba kañ loolu yëpp ba kañ ah ñun nag ñun nag ku ku sës nag ku sës nag foo nga ku ñu xoj foo nga wequ foo nga te ñun dañoo sonn dañoo sonn ci biir seen lekk bi dañ cee sonn ci dañoo on en a marre de de situation bi nekk nii ñuy toog ay weer kenn du la fay yow chaque chaque weer ñu fay la chaque weer nga am nga am prime chaque weer nga am lépp yow boo boo xëy suba rek romb ak booy nag yéen a ngi noo amul problème yëkkati dara ni la am téeméer a ngi nii mais téeméer lan la mën téeméer rum mën mënu dara mënu dara mënu sa jënd ndékki ndékki sax mënu koo jënd waaw mais loolu la ba kañ nag léegi Pape Demba nag Pape Demba ñooñu abal ci nii wala ci naa wala mu jël ñu ñaar yooyu moom mun a am jël ñu wala mu abal ñu si nii wala si naa te président nag président moom la ñu interpellé directement nag moom la ñu interpellé directement moom moo ko fi moom moo ko fi teg bu fekkee mënul liggéey bi na ko fi jëlee indi keneen na ko fi jëlee indi keneen ñun loolu la ñu wax waaw wasalaam. salaamaaleykum encore beneen yoon Sénégal di jaajëfal ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy travailleur u Sénélec yi gërëm. di leen sant di wax ne ñun Sénégal su nekkee ne gore nañ ñun yi bu nekkee ne gore nañ xeex bii ñii di mënuñ cee wéet parce que nga woor ba ngoon jot nga naan ndox mu sedd ñi ñoo tax mu tàng jër nga taal sa clim ñi ñoo tax kon ñun senegale yi suñu responsabilité aujourd'hui mooy buñ leen seetaan ci xeex bii ñu ne waxuma sax ay waxu Pape Demba Bitèye yeeg waxu Macky Sall lu dul incohérence nekkuñ ci munoo dig sénégalais yi liggéey am 500 sénégalais yoo xam ne ñu nekk ay prestataires depuis des années munoo leen fexe ba régulariser loolu ay yëfu caaxaan la waaye dama ne ñun waa Sénégal nañu jël suñu ay responsabilité fexe ba accompagner suñu ay papp suñu ay frères suñu ay doom suñu ay sœurs ñekk ci xeex boo xamante ne nii. lenn jógu ci lu dul suñu ay service parce que Senelec service public la ku ci am satisfaction ku ne ku ci toog sa biir kër taal sa clim mu sedd nga ibbi sa frigidaire naan mu sedd jàppal ne am na ku la koy jox am na ku koy taal te kooku di la ko jox muy travailleurs yi risques yi ñuy jël amuñ indemnité amuñu ay gants chaque jour nga gis ay agents Senelec yéeg ci ay poto amuñu gants amuñu masque amuñu casque amuñu dara te mun naa waat ne chaque jour nga gis ci ay accident te jamais accident yi ñu déclaré leen ay nit nañ ci ñàkk seen ay membres seen ay loxo seen ay cër seen ay nangam jamais ñu indemniser leen sénégalais yi sax yëguñu ko dañ koy nëpp nëppal di ko nëbb nëbbal di ko caaxaanee pan en pendant ce temps ñoom ñu nekk ci kaw ñu ngay jor ay salaires yu dun yore ay oto yu neex suñ ay frères suñu ay mag suñu ay papa nekk fii nag ñoom ci suuf ñoom ñooy nekk ci tali yi nekk ci weñ yi nekk ci fiil yi yéeg wàcc daw génn dara muñ leen ko jox ay yow mi nekk sénégalais nag nga bëgg toog nag yow ñoom ñi lay jox courant te yow doo leen fa nekkal moo tax kon le 29 bii nii incha allahu rabbi le 28 bii nii incha allahu rabbi il faut que tous les sénégalais sortent ñun xaaratuñu ay autorisation xaaratuñu autorisation monsieur le préfet yaa gën a xam li am. yaa gën a xam li am Macky Sall bi mu bëggee organiser dajale euh, def euh, powam ma fële laajul autorisation. keneen ak keneen bi ñu bëggee def seen ay yëfu caaxaan laaj ñu autorisation kon laaj ñu autorisation lii c'est un devoir pour tous les citoyens sénégalais que de sortir aujourd'hui ce 28 là soutenir des travailleurs de la Sénélec parce que boo ko deful yaa ngi seetaan un service public muy nasax boo ko deful yaa ngi def non assistance à des personnes en danger parce que c'est des frères sénégalais c'est des sœurs sénégalais c'est des pères de xamante ni ils sont exploités depuis des années état bi parewul jël ci ay jumtukaay lenn la Macky Sall xam muy le rapport et duñ ci hésité dem duñ ci dem benn ginnaaw père lu ngeen ci bañul bañuñ ko ci du ngeen ñu jiitu ci mbedd mi te sénégalais yi ñu saraan kenn du leen jiitu ci mbedd mi kon na gars yi le 28 incha allahu na ñu génn pour que ñu régulariser tu ces sénégalais là yi nga xam ne ñu ngi nekk Sénégal di fa liggéey depuis de années te état du Sénégal di leen saraan di leen toxal faalewuñu leen ñu leen def naa fanweeri ak ñett Sénégal am juróom-ñaar fukki at ak ñaar amical bu jaar Sénélec su ma ko coaché wul conseillé naa ko maak Habib Aïdara bu secrétaire général Sutelec ñoo départ woon ñu dem ba 2003 ñu doog ñoo jox euh, CDD 2004 embauchement yi jóg man maa doon coordinateur délégation centre est bu Kaolack comme que délégué bi jëloon na ay gorom dugal débauché ay nit ma signalé ko au niveau au niveau de Madiama Sow ngay bañ a renouveler sama sama contrat. ma toog di defar prestation ba retraité cent sans pension ma ne du ma ti ci àddina ñu exploité nitu Senelec ñii en 2017 ma woo leen ne leen yéen nu ngeen bëgg a doxalee seen àddina liggéey dem ñu jox la 2500 wala 3000 nga dem organiser wu leen ci laa woo mu ne mel ni ñu koy defee ma ne ko woo ñi même bu amee 10 prestataires baax na. ñu tàmbalee dix prestataires maa ngi ñoom réunion ñuy dem ba Sokone dem ba Fatick partout ñu def ba mu jigi ñu am cinq cent lu mat sëkk bañ ñëwee bañ tàmbalee dañ ne coup de force ma ne déedéet nañ jaar par le dialogue cinq fois lañ rencontré Pape Demba ba ma dem ba Biteye maay wax xale yi man lañ jox kàddu gi ne waxal bu njëkk ba daf ne ma bàyyi daam ma ne ah mu ne ma daan leen ma ne ko directeur waxal ñaata mu ne mënaguma la koo wax parce que conseil d'administration il faut moom laay yëg deuxième laay yëg ba mu wax ma li ma ma am sama quota moom doo ko mën a wax deuxième bu ñu tasee mu ne deux mille deux cent dix lañ ma jox ma ne ko kon de cent cinquante mun nañ la ko proposé mu ne mënaguma ci fixé wu mais li wóor mooy naa leen embauché te am na beneen prérogative mu beneen initiative moo leen jox sax créé waat leen encore GIE ñi demul ci embauchement bi ñu mën a liggéey ci GIE bi ñu toog ba le vingt neuf décembre 2020 mu woo kii ne trois personnes mane ne ko déedéet du ci dal Moussa Niang coordinateur bu euh, géej bu Daaru Xan ne ma bàyyi daam ma ne mun on change de fusil d'épaule ma ne ko nañ xaar ba kera ma woo kii ne ko comme que ñun bi ñuy tëj bi ñu bi ñu créé ba ñëw pour gars yi xam ñu dañoo génn dans la presse Matar Cissé interpellé ñu convoqué leen Dakar Pape Demba il persiste ne ñoom duñ du leen dimbale nañ génn ñu génn léegi ma xam lu bari loo xam ne dund naa ko Senelec lenteur administrative yeeg lenteur yi financière yi nga xam ne duñu fay gars yeeg yëpp xam naa ko Senelec dafay naxaate dafay foop luy prestation rek ci Senelec ni koy lebal ñi koy lebal ay fourniture muy rig ay oto mag yëpp lay booleeg ñi nga xam ne ay employé lañ di liggéey ñaq wala mu fay leen ñu toog ay 3 4 mois doog leen jox mandat def benn pièce de caisse ñu décaissé ko doog ko éventuler loolu moo indi retard yi ñi gérer GIE yi c' est des cadres direction générale des politiques agréé leen jox leen GIE yi ñoom buñ fayoo dañuy lekk seen wàll ba pare ka leen nekkal te GIE ba di ko corté ñu daal di ko jox wàllam il n'arrive pas à payer le mal léegi nag may wax président de la république moo woo barki démb rek mu wootee ne politique de jeunesse lay def surtout l' emploi des jeunes maa xam la bala ngaa créer ay DER li créer ay FNPJ ñii def cinq ans dix ans dix huit ans vingt ans ci boîte mais régulariser leen régulariser leen comme que moom jàmm la bëgg li fi xewoon gis na ko te ñun bëggatuñ dellu ci loolu na woo Pape Demba bi tey mettre ko devant responsabilité et puis mieux kii ministre de l' énergie bu jigéen bi jox na ko correspondant wax ak moom ba ministre bi ne ko naa def lépp pour ñu embaucher leen ba tey elle n'a pas réagi te ni na directeur waxtaan ak moom directeur bañ préfet préfet na xam ne ñun droit de marche dañ ko inscrit ci constitution bi te dañ ne adresser la demande quinze jours plus ou trois jours moins cest quinze jours francs ou trois jours francs na nga ko def quinze jours li gën a gaaw ma toog bu la tontuwul bu demee ba ca troisième jour ba wala quatrième bala quatrième jour bi renouvelé ko war na laa tontu depuis le quinze depuis le premier jour de la demande ou le deuxième jour de la demande le dernier jour ou l'avant dernier jour de la demande kon nga xam ne xam nañ suñu droit parce que ñun tam ay sénégalais ay citoyens lañ léegi nag ñuy wax président de la république ne ko bëggatuñ jóg ñëpp di ci dugg ñu ne voilà léegi avant mërti yéeg naa nga waa seen léeg waa moo tax on invité la société civile en l'occurrence Y'en a marre Y'en li tax ñu am ci moom rapproché wu ci moom woolu ko dañoo gis mu def ay preuve am dañoo apolitique te bëgguñ ku doon ku daan doomi aadama wala ku ko ñàkkal doole mbaa ko exploité moo tax ñu am ci ñoom yaakaar ñëw ànd ak ñoom ñu leen di waxal ñoom parce que bala ngaa bala ngaa wax borom réew mi waxal ñi ngay àndal ne ñun wax nañ leen ñun bañu ci dara parce que damaa gis benn adage léegi bi ngeen def fi benn proverbe il n'y a pas de destin forclos mais de responsabilité désertée lu nag loolu du ñu dal on ira jusqu'au fond on va se donner en corps et am ce qu'on demande et ce qu'on exige c'est la régularisation la régularisation complète des 499 prestataires de Sénélec voilà ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen wax ne yéen jàpp nañ leen duñ leen bàyyi parce que ki nga xam ne boo boo boo xëccee mu ñoddi ngeen ànd àndandoo ñoddi bu ngeen daanoo daanu bu ngeen jógee taxaw jóg taxaw kon kooku bala ngaa gërëm kenn gërëm ko ñu ngi leen di sant di wax xale yi ne góorgóorlu leen te ngeen nekk mbooloo la ko dalee Vélingara li ma waxoon keroog ci réunion bi Vélingara ba ba ba Ndioum ba Matam kenn du des ñëpp a ñëw le jour tout le monde viendra ay car la ñuy jëw ba Sokone nag ñëpp a ñëw parce que suñu destin xale yi la